waaw mais Fall. siyaar. waaw mais siyaar naa la. waaw ah, ah, yàlla. muy cool. oto bi ngeen. waaw baa ngi nii de pour le 4 février. waaw ah oto bi lañ tegal mbëri. ak 500000 francs. waaw tout ah? mhm. oto baa ngi nii Fall. waaw muy cool nii. doo xool. bonne marque nga Mercedes laa laal. Mercedes. Mercedes Benz cent cinquante. waaw. waaw ma am na ah. ah. baa ngi nii. waaw carte grise baa ngi ni waaw visite technique bu valable. waaw nice. waaw ah. kon na ko ñëpp déggandoo. na ko ñëpp déggandoo. waaw tuuti waa Fatick de beneen waaw le 4 février incha acca xanaa doo leen gis waaw xanaa doo leen xool. sulum salum du droit waaw kon gars yi oto baa ngi noonu ah Mercedes Benz deux cent cinquante lañ tegal mbëri xam oto na xam nga ne Mercedes bokk na si oto yi gën a ñeme coono waaw oto tout terrain foo ko yóbbu mu daw yow voilà mi ngi noonu waa Lawin TV ñoo woote waaw kon mbëri yeeg amateurs yi ñu ngi fi woo ñëpp waaw Fatick lay xewee ñu noonu Cameroon Thailand. Dia buat Cameroon Thailand. voilà mi ngi noonu lu ne fan kenn du ko ji ku doon laaj Faly Ngoye ngi nii woo na animation bi Mbayang Loum Momo Ngom drapeau Bour Sine ah parrain bi di Charles Emile Abdou Sis coordinateur wa million ngi du Sénégal trophée spécial pour Sine samedi le 4 février 2023 à Fatick sous le haut patronage de monsieur Charles Emile Abdou Sis coordinateur de la coalition Ëllëgu Sénégal mi ngi noonu ah mom tamit dañ koy jaajëfal bu baax gis nañ taxawaay bi am voilà ñu li nga xam ne moom mooy parrainage lamb ji me jël lepp teg ko ci loxo waa kër Buur Sine Coumba Ndoffène le roi di Sine muy xam nga lu nice lu rafet macha allah oto baa ngi kon mbër voilà si campagne yi amateur yi ñu woo ñëpp képp ku mos a seetaan lamb à travers Lamyn TV rek ñu ngi lay jox dig daje fii ci Fatick ci samedi bi le 14 voilà samedi bi. que corronde bisa wala ko sarare jalo ge ko munde sare amur ka kamalare bisa kulla ko sarare jalo ge ko munde sare ka kamalare bisa kulla ko sarare jalo ge ko munde sare amur ka kamalare bisa kulla ko sarare jalo ge ko munde sare como que के गुरु ने सारे बिसवला कुरसलाने जनोगे को मुंडे सारे अंबुर का गवाना रे बिसवला के जनोगे कुरनुंडे सारे का गवाना रे अभी सब बिसवला कुरसलाने जनोगे correr esa